dañ doon teg saison yaay yaay. teg saison ba ci defante lu bon di jël ay vidéo ku ne di sa xoo sa waay nu lay kii naan est que man ñeme naa waxaat ci loolu ñu doon wax. non man kay dégg ma ni wax sañu ma man kenn ku ne naan sa morom nii laa mënee kii naan nee laa mënee ku ñu jigéen ngeen naan ku nekk euh, sama sama sama copain nii laay nii fii laa mën a yegg ci oh oh li ñaaw na. xaram na oh, oh. ñaaw na. lii bon na ñaaw na ci ay jigéen lii rafetul xale nga waaye bu ëllëgee yéenay doon yu mag kon def leen lu rafet wax leen lu rafet bu ëllëgee bu leen defee ci vaar bi du ngeen am gàcce mais lii gàcce la ci ay xale de xale day nekk xale waaye ba léegi da ngeen nekk mag de. mais mais mais d' accord naa foofu li nga wax ñoom lu ñu def baaxul mais tamit Sénégal yi tamit am na si part de responsabilité ñenn ñi laa mun a wax. parce que tey jii vidéo yi euh, est ce nañ ko partage di ko partage bu muy law wër Sénégal yëpp. est ce nañ toog est ce que ñoom war nañu toog. di def seen i porno ba pare ko filmer. mu moom laa la wax mais. kan moo moo yor toor bi. ñoom ñoo yor toor bi. mais tamit est si benn part responsabilité pourquoi tey jii nii bu yemoon si bu yemoon si vidéo yi su ma si jotoon xalil envoyé ma ko. mu mm. bañ ko envoyé mu bañ la ko envoyé kon du ko sa beneen morom amu ko fu mu ne fu mu ne tas xibaar a lu ñu lu waay xamal nit ci benn virgule ba nga daal di koy am sa occasion génne ko ko kon donc ñoom ñoo war a am xel dëkk bi lan ñaata ñaata ñaata kii lañ fi génne ay nit di leen weeje su sore kañ la xaaweeku ñaata nga dégg fi ay daga ñoom waruñoo mën a am xel ci loolu xam ne lii kat bu mën mën naa génte a am xam na nag nga sol sab jokkin man ne dama am sama jokkin man waaw raag ba ba dugg baat vocal man dama am jokkin boo xam ne spécial la bu ma ko solee bu ma ko solee rek ku roon gone ci biir kër dégg ma dan noonu la mag di def ci kër. waaye nag xale yi ma ngi yar nañ de waaye xale ñoo dëng de ndax fi ngay waxee sam si si malak saala su doon mën na mes dem yoonam. doo xam ci lu mu ne xam nga ki la tàggu ne dem école. Mhm. école nga mën a gëm dëgg neexul xam nga mairie tamit dañ leen di dañ leen di critiquer lu baree baree bare bari mais nag xale ñoo dëng ndax ki la tàggu ne école laa jëm jaar ca mbuur dem tëdd tëdd tëddam def li mu war war ta def ah wax lu mu war ta wax. ba ñu filmé ko ba mu tasaaroo yow mi yaay yëguloo ko ndax kenn du yebba sa doom ne ko demal nga jooy pour na doom ju am 18 ans dëgg neexul mhm. yaay dafa metti mhm. te xale yi nag dañu war a yërëm seen yaay yaay yi sonn nañu mhm. yi li li li lii xaju ci ci ci xolu yaay dafa metti ci xolu yaay xale war nañu delluwaat seen xel mi de te xam ne xale day doon xale tey mais suba da nga di nekk mag de ndax man mi toog di wax ak yéen sama démbaa nga ni ma toog di ko seetaan tey maa ngi ni nekk yaay attention xale day dekk xale mais ba la ëllëg mën nga nekk mag te xale day dee mag day dee attention mhm. na xale def très attention ci si li ñuy def topp sa bakkan ba def nekk su le noonu maa ngi yow miy góor même xale yu góor yi wallaay amatuñu valeur sauf man bu ne yaay première <laughs> bu ma yàqal sama émission bu ma yàqal sa yaay première yaay première yaay yaay setaan ba yaa ma ci cuq yaa ngi may dégg baax li ma la wax bu ma yàqal sama vidéo bàyyi ma ma dem xale yu góor yi ñu doy waar lañu ñu ma baal ak ña ma ko war a wax parce que am na xale yoo xam ne nag wax dëgg yàlla ñu am diine lañu. comme xale yoo xam ne ci xàq biir xàq lañu nekk. waaye am na xale yu góor yoo xam ne foo rekk nekk seen bopp yi. nañu bàyyi loolu te xam ne foo wayul wayulul àddina de. foo teewul àddina de na xale yi delluwaat seen xel. waat ci yoon boo dee ceen demal église di di julli ci église ba boo dee julli dugg ci jàkk yi xaq bi xaq baa nga fi ah mam borom Tuubaa am na mu fi bàyyi mam alaaji Maalik am na fi bàyyi chance bu ñu am ñun sénégalais am na ñoo xam ne yoo xam ne amuñu ko de góorgóorluwaat leen te xam ne bu leen yàq seen réputation dëkk dëkk bi dëkkub teraanga la dëkkub jullit la na yi xam loolu lii yàq réputation dëkk la nañ ko arrêté te lii dañ ci war a def sanction nag lii sanction dañ ci war a am vraiment def ay po def ci ay vidéo muy tas bi dëkk bi di yàq yeneen xale yoo xam ne ay xale yu baax la mm-hmm. ñu ñu defe ne lii moo baax dañ leen a war a sanctionné mm-hmm. xale yooyu ñu jara sanctionné la ñu mm-hmm. waaw loolu nag moom dañ ci ah, dañ ci interpellé. Euh, euh, gouvernement bi gouvernement bi. lii nañ ci taxaw ah. ne na leen amatuñu fruit. fruit ndax yéen. ah, ah? fruit duñ koy dee. fruit ana fruit ana fruit ak awra jigéen. moo ma waaye xale yi rek li leen waay. ay pom bu xonk wala bu kii bi <laughs> bu verte bi ma ngi yóbbu Sénégal astafurlah yaay booy baal ma de damay def émission rek mm. euh, mbokk internet di jërëjëf at mel ni dañuy pare des na beneen beneen boo xam ne boo am solo la parce que.